taala wa raha wa ayyadahu wa saada min nasrihi di la jot li kàddu nuyoom ak i cantam ak i ngërëmam ci bis bu tedd bii di laylatul xadri xayru min alfi shahr muy gis goo xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wa moom la ko suñ borom baaxe baaxe ko jullit yëpp mooy guddi goo xam ne wecc na juróom-ñett fukki at ngir xam gëm xam ne xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa fan mu baaxe ko ko waaye nag mooy gudd gu tedd goo xam ne Serigne Touba wax na ci lu bare bare waaye Cheikh Mouhamadou taxaa wax ne bis bii nag bu ci ñépp jariñoo ci as-Sayda Maymuna la ko suñu borom jaarale kon tuyaa ba ko ci jëkko ci suñu borom di faye ngir mu war a wisaaro jullit yëpp loolu kenn xamul dum toll kon sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm ndax xam nga ne bis bi moo ko moom ci fànn yëpp ca la ci jiitu mooy nekk gi mu fi nekkal Sëriñ ndax day muur lépp waaye la xam ngeen ne soxna si ci nekkam moo doon jëwriñu bis bi moom Cheikh Mamadou Mountakha bu mosaan agsi day laxasaayu bàyyi yitteem yëpp nekkal fi Serigne Saliou nekkal fi Cheikh Mouhamadou Mourtala ànd ak soxna si mu doyoon ko ci lool daa ci def yitte ak pëstéef ak taxawaay bu mat sëkk bu yàlla defee mu dem ba doon Serigne Touba nag kon bis bi bisama kon mi ngi ñaan ngeen yàgg koo taxaw te yàgg cee dajeeg ndimbal ak tawféex bu toon ak ngant ak nga jox ko nga nga jox ko aw ngant yow si jëm bopp ngir xam ne mënatul fu ne mu teew fa te te teew fii bàyyi fii moo tax ngeen jéggal ko ko waaye kon nee lu métti métti bu doon raam ba agsi fii dana ko def ndax pëstéef digg ma Sëñ Tuubaa pëstéef digg ma soxna si kon mi ngi lay sant di gërëm ci seen pëstéef ak seen taxawaay ngir xam ne kër gi kër Sëñ Tuubaa ndax soxna si kat day borom jite ju kawe di borom pëstéef bu rëy boo xam ne lu lépp lu mu mas def rek liggéeyal Sëñ Tuubaa la ci daa fas kon ñu ngi koy ñaar ñaan ci barkeem suñ doom doole ay leeram te taas suñ ci barkeem di fàttaliku it doomam ju tedd ja soxna Bali doon jàmbaar di sa wéttal di ku baax koo xam ne foo ko ma sa gis rek suñu bàjjen yu teddee la ñuy fàttali ci laabir ga ak jikko ju baax ja ak mën na terle teraangam ji nga xam ne kenn ñëpp la mas a daj ku ne la sa teraangam ak seen i ci kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom dolli ay leeram di ñaanal doom yi nga xam ne ñoo na fi bàyyi di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nga xam ne mootuñ seere ci moom waaye nag mën nañ koo seere ci liggéey suñ Tuubaa bi nga xam ne ñoo ko ànd ñoo ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax ngir ni mu ànd ak ñun ànd bi sax jiitu na liggéey suñ Tuubaa bi danaa ci nettali lu kiimaane guddi gi fi Cheikh Saliou Mbacke bàyyi ko boobu yan bi egseegu ci sama loxo ca guddi gi boobu ñu jaaxle lool mel ne àdduna dafa tukki muy fàttali ñibbi si Sëñ Tuubaa ci njaareem ji njaareem jëm si Tuubaa maa ngi fàttali ko ba ma jaaxle lool ba àgg ci mel ne ko xamatul fi ma ne mu wax ma kàddu gu am solo ne ma yow kat yëf yi lu metti metti waroo doxin yi waroo jaaxle ndax yoonu dañ cee war a suy ay yu bari loolu yàgg na kon comme gis-gis la boobu ba nëgë ni nag Cheikh Mouhamadou Lamine Bara maa ngi fàttaliku bi muy jël liggéey jumaa ji di ko teg ci loxoom ndax Sëñ Saliou ko joxoon ba mu dikkee di ko yeesal dama damaa wax ne ma li tax ma boole la ak Cheikh mooy liggéey bi doy nga ma ci mu doy ma ci waaye ëllëg si dara du lënt boobu ba nëgë ni nag mi ngi koy sàmm di ko rafetal. ci biir ak ci biti kon ñu ngi koy ñaanal yàlla dëgëral ko moom it kàttanal ko te ànd bi àgg ba ci kanamu Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom la liggéey di soxna Astu mi nga xam ne mooy doomi soxna Bali mooy itam di ko ñaana mu yàggee taxawee liggéey maamu jooju di nuyu nag délégation bi nga xam ne ñoo fi teewal njiitul réew mi président Macky Sall di di ko teg ci loxol ministre Galouba nga xam ne taalibu Cheikh Abdoul Fatah Mbacké mu Cheikh Modou Fadil la te sama digg moom ñëpp xam nañ ko di ko yóbbanteem nuyoo ci président ak cant ak ngërëm ci taxawaayam ci bis bi ak mboolem ñi mu àndal ñëpp nag te buñ ci tuddee gouverneur de la région Diourbel ak préfet bu Mbacké ak mboolem ñi ñu àndal ñëpp bàyyiwuma kenn di beral ak nuyoo ak cant ak ngërëm itam ministère Omar Sarr li tax cant giit mooy lii mu jataayam bi mu toogee wane ne kóllëre te nit bu ñu ko jàppale kóllëre tax ndax màgget gi nekk na ci opposition ñoo fi daa bokk di nekk ba yàlla tey mu def mu nekkaat nekkoon na ci nguur di ci teew nekk ci opposition di ci teew nekkaat ci nguur di ci teew kon wane na ne njabootu Sëriñ Tuubaa gi li leen di booleek nit kóllëre ak cofeel la doon waaye war si nekk nguur rek. ndax bu dee nguur rek day am fu mu yem te kóllëre suñ borom da daa wax ne wala tanqudul aymaana ba'da tawkiidihaa kon ñu ngi nuyu ñëpp ak ñi fi teew ñëpp di siyaare suñ mbokki këri diine yi nga xam ñoo bàyyi ko njabootu Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass bàyyi ko ci eh, sëriñ Mahi Niass ak mboolem mbokk yi fi teew yëpp di nuyu Serigne Ateex mi nga xam ne moo fi teewal Alhaji Maam Thierno ak Serigne Abdou Khadim mu Serigne Mourou Moussa Fallou xanaa bu ma limee sax damay juum waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan rek bis bii ñu xam ne fursa zahabiya la occasion wurus la occasion wurus nag ni ko Serigne a waxee ci Masaalikul Jinaan kenn du ko jënde ak nen ndax guddi la goo xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam digg na ci lu ne képp ku ku ko dàkk ba dajeeg moom yàlla suñu borom jéggal na say bàkkaar yu njëkk yu mujj teexe nga ba faw kon nag guddi la goo xam ne waris na ko dundal ci jàngal xoon waris na ko dundal ci teraanga waris na ko dundal ci istixfaar ak ñaan gi nga xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daana ko def Sëriñ Tuubaa nag ku fonkoon laylatul qadri la ndax i'tikaaf bi mu defoon fii xam nga ne ci laylatul qadri la wërul maa xuus ci la ko Sëriñ Tuubaa jot mu jóge ca rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tolloog ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru ko ci Sarsara yoonu murid bi mu koy woote itam ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru koor dajewoon ak laylatul xadri kon Serigne Touba ko fonkoon laylatul xadri wax na ko fu bari ci ay mbindam yow mi nga xam ne yaa def sama dund gépp mu mel ne laylatul xadri wax it ne sama du xat aw saltali fii Ramadan maarumtu minka qablahu bi faydaan ci weeru koor wii ci la ma suñu borom joxe mbooleen li ma doon wut ak li ma doon sàkku kon nag nañ xam ne weer la woo xam ne teral la ci ab jullit kon bu agsee ñëpp ci war a gën a def yitte def ci positif def ci taxawaay di ko gën a sellal ngir xam ne kat képp kum rëcc ku ne boo tàbbee ci sa bàmmeel la ngay jëkk rëccu bokk na ca fekkoon naa leen xarit te dundaluma ko kon nag ñi ngi sant ñëpp du gërëm ñëpp ndax xam naa wax ji du gudd. ndax jataay yu yàgg yi te xam naa ne li ci ëppoon solo ñëpp kilifa yi danañ ko wax ndax suñ Maodo Mahfouz moom xam naa discours bu accès ñëpp danañ ay fàttali kon nag daanaka jëru mooy ci dellusiwaat kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan di nuyu Serigne Youssouf Cheikh Maodo Mourtala ak kilifa yi fi teew yëpp ndax yaakaar naa Cheikh Gueye bi doon lim lim na ko te fii moom ku fi ñëw rek eh, liggéey Serigne Touba la fi ak fàttaliku. soxna si ndax soxna si bis wi da koo ñoroon neewoon na bu ñu ma defal benn bis sama ginnaaw man teew naa it ak njabootu Sëriñ Tuubaa bu bari bi muy door a defar kër gi mu wax yéen i jëm ci ak ni mu ko bëgg a dundale moo tax kon yéen sax bu ngeen ko jiwutoon seen bokk it ñëpp dañu fi ñëw di ko dundali soxna si ndax soxna si moo toll noonu ci yoon wi kon ñu ngi sant ñëpp ndax moom bis bii day bisum ndigal ndax Cheikh Mahamadou Fadil bi ko soxna si njëkkee def rey ci ñaari ginaar mu wax ko ne ko dangay dem ba rey ci ay gileem kon loolu ñëpp teg nañ seen bët li ko toxal si Touba it Cheikh Abdoul Ahad ko fi indi ginnaaw bi Cheikh Abdoul Khadir saa su bi su masaan agsi fala day jullee yoor yoor at jum itam xam ngeen ne Cheikh Saliou ak Cheikh Mouhamadou Mourtala kii day génn kii di agsi loolu kon wane na ne soxna si liggéey na Sëñ Touba ba laq na ngërëmu Sëñ Touba te loolu rek mooy li am solo ci àdduna ndax Sëñ Touba kat ku ko mas a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 su ñu ci tuddee kilifa ak jataay bi nga xam ne moo waral ñépp ñëw fi tey muy sëriñ Modou Mahfous di ko jox nuyoo bu sell ak ab siyaare ak ndokkeel mu jox ko mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi waaye mu jox ko mbooleem njaboot ak maam Thierno Birahim gi fi teew te jógee Daaru Musi kilifa yu bari jóge nañu fa teew fi kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la ndokkeel ci dayo bi lay suñ borom jox di nuyu sëriñ Basiiru Mbàkke Abdu Xaadir mi nga xam ne moo daane léegi te yor kàddu yoon wi ci turu sëriñ Muntaxa xalif général des mourides yàlla na fi yàgg te wér di nuyu mbooleem kilifa yi fi teew di nuyu délégation bi nga xam ne ñoo jóge ci président de la république ñëw fii te Gallo Ba jiite ko ànd ko ak Isma Dioum ak mbooleem ñi mu ko àndal gouverneur de la région de Diourbel préfet de Mbacké sous-préfet de ndaam ak commissaire spécial bu Touba ak capitaine bi nga xam ne mooy li escadron bi ak mbooleem autorité yi fi nekk ak membre de CRD bi yëpp kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu di la sant ci liggéey bi nga xam ne suñ borom boole nañu ko ba mu agsi fii tey di nuyu bu baax a baax baax sëriñ Cheikh Abdou mii fi nekk moom it li ko sëñ Bass waxee rek suñu diggante ak ab taxawaayam ab tool la danga ci bay benn waar rek bàyyi waaye du xëcc jataayu cérémonie nga di ko wax ba mu jeex di rafetlu bu baax a baax ni ñu suñ borom boole te sëriñ Modou yëkkati woon liggéey bi jiital ko ci mu ñu mu ànd ko ak ñun ak taalibe yëpp ak njaboot ak kër gi ak membre CRD bi ñu di ko topp ba ak ci fii tey ñu ñu de la ñuy seeral sëriñ bi rek ne ku sant nañ yàlla lool ci boole gi ñu yàlla boole ndax jikkoom ak doxinam ak demarsam ku neexa àndat la ndax nit ku la yàlla booleeg moom nu mu mel danga nga jéem ànd ak moom su ko sun borom di su la sun borom dimbalee mu neex a àndal xamu doxalin te rafetal ko loolu ndimbalal ñi nga xam ne ñoo ñun boole woon ak moom te neneen nu meloon nit duñ mën a tàggoog moom di nuyu bu baax a baax sëriñ Omar Sarr mi nga xam ne sëriñ Bass wax na ko léegi ci kóllëre bi naka jëkk lu at yàgg-yàgg jamono yu yàgg-yàgg traversé nañ ko te ñoo moomay bokk nekk fii di xamal sëriñ bi rek ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di la ñaanal yàlla guddal saw fan te wéral say cër ndax bi bis bi jubkat da ñoo boole ak njaboot gi ak taalibe yi ak administration bi ci na jiite ko ñu ànd di waajal bis bi ba ak si fii tey waaye ñu de la xamal ne daal lépp li nga xam ne yaakaar nañ ne lii moo koy rafetal wala lii lu ñu war a def la walla lii lu ja jaadu ci bis bi la loolu ñi ñu ko àndaloon ñëpp kenn ku ci nekk li la ci war lépp def nga ko ba ñu agsi fii tey kon nag rafet na lool bu ñu taxawee ñu seereel la loolu di wax rek nag li li li waral bis bi comme ni ko Serigne Bass waxee bis bi nag euh, laylatul xadar ci soxna si day taarix boo xam ne ah, yal nañu yàlla taas ci barkeem lim ci jëf yàlla na ko suñ borom nangu ndax jëf ji suñ borom nangu mooy toll nii koo xam ne dangaa amul ndigal def ko togg ñaari ganaar yot ko sëriñ fàllu mu jox ci ndigal ñi ñi fi jaar ñëpp di xalifa sëñ Tuubaa kenn ku nekk di ko firndeel di ko feddal di ko feddali ba mu toll nii mu toll tey nekk dimension internationale loolu mooy jëf ji suñ borom nangu kon nag ñoo ngi lay ñaan nga ñaanal ñu ci barke bi soxna si yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen ko jaboote muy yow sëriñ bi muy Cheikh Abdou muy soxna su ngeen ñaanal ñu yàlla may ñu ngërëmal sëri soxna si ci lii ndax ku ci am ngërëmam rek am nga ngërëmal sëñ Tuubaa tu am ngërëmal sëñ Tuubaa am nga ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla moom dara melun ni moom kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulillahi alladi بين أرواح وأرواح وألف بينها قبل ظهور الأشباح وعلمنا على لسان نبينا أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف من اختلف وما تناكر من اختلف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا abduhu alladi istafa wa li kaafati xalqi arsala wa salaatu wa salaamu ala man axa bayna almuhaajirina wal ansaar wa ala alihi al athaar wa saxbihi al axyaar wa ala taabiciin wa taabicihim bi ixsaanin ila yawmi ddin wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñuy nuyu jotaay bu sell bii jotaay bu tedd bii jotaay bu màgg bii ci turu xaadimul umma sayidi wa moolaay alxalifa cheikh Mouhamad al Mahi Ibrahim Niass mu ngi yëkkatu nuyoo yu tedd yu màgg du koy teg ci loxo cheikh Mouhamadul Mahfouz mi nga xam ne mooy borom jotaay bi yëgal ko ko mu jaarale nuyoo bi ci moom mu yeggale ko ci porte parole sayidi wa moolaaya cheikh Mouhamad al Bachir Abdou Qadir naatiq rasm bismi alxadra al muridiya nga àggale ko ci alxalifa al aam li taifa al muridiya sayidi wa moolaaya cheikh Mouhamad al Muntaqa yal na yàlla may ko wér yal na yàlla guddal fanam yàggal ko ci kanam njaboot gi mu yàggaleen a tette ci kanam ak kanam sëñ bi mu ne mu ngi leen ñu nuyu waaye di leen ndokkeel ci jotaay bu sell bi jotaay bu màgg bi jotaay bu tedd bii nga xam ne ñu ngi tëyamu nan di fekkee guddig laylatul xadri ngir màggal ko ngir nafaxaat yi nga xam ne am na ci doy na ci rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu caabaan di jeex axiri yowmi chaabaan dafa toog dajeeg mbooloo mi ne leen inna allaha tabaraka wa taala qad dallakum chahrun azimun mubaarakun chahrun fiihi leylatun xayrun min alfi chahr chahrun jacala allahu qiyaama yowmihi tatawuan wa siyaama yowmihi faridatun mu ngi sant yàlla bi nga xam ne yàlla mu ngi may weeru màgg weeru tedd muy chahru ramadan xam ne aw awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa axiru itqu min annaar ngeneel loolu yëpp jaruñu ko fi wax ndax xam nañ ko ndax ngeneel loolu moo ñu fi tax a daje moo ñu taxa a ñëw ñu toog ngir taataan xéwal soosu nga xam ne sëñ Bas junj ñu ko fi léegi junj yooyu doy na jotaay bi te ñun xaaruñu ci kàdduwaay waaye dañoo baax dañoo yaatu ngir kóllëre gi nga xam ne amoon na ci dëkk bu sell bi rawatina taawu Cheikh Ahmadou Bamba xaadima rasul mi nga xam ne bàyyi ci téereem ruuxul adab wax na ne sëriñ bu mag bi ñu ngi koy wax waaye yaakaar naa Baye Niass moo ko njëkk wax ndax wax na ci biir téereem boobu muy ruuxul adab faqad qaala fi haada almajaali amjadu xadimu taaha malikul ahmadu ci téeram boobu nga xam ne Baye taalif na ko muy premier téereem Baye wax na ne ci majaal bii ku tëdd ku màgg wax na ci muy xaadima rasul taha muhammad ban kooku Baye Niass ku yàgg site cité Cheikh Ahmadou Bamba xaadima rasul la ku yàgg a la ci ay may yi nga xam ne yàlla may na ko ko loolu nag dañ ciy sant yàlla ndax Baye mu ne képp koo xam ne yàlla may na la ngëneel rek nga loolu nangu na la ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mooy maye te képp ku may rek may nangu na la sa ngëneel loolu te may na ci Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ngëneel yoo xam ne kenn nattable wu ko foo dem ci àddina di nga xam ne kii am na cër ci yonent bi sallallahu alayhi moo tax ñu ngi ndokkeel njabootam bu baax di leen ndokkeel ci o bi ngeen ni o ci yàlla te yonent bi moo ñu wax ne sallallahu alayhi wa juróom yii war na diggante jullit bu nekk ak moromam bu ci njëkk mooy bu la nuyoo nga fay ko ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsani minha aw rudduha sa mbokku jullit bu la nuyoo ne la salaamaaleykum fay ko nuyoo sunna la waaye moom fay moom farata la bu ma dugg ci woon ci mbooloo mi nuyoo kenn fayu ma mbooloo mi yëpp bàkkaar neen waaye bu ma bu kenn fayee rek wàcc na ñëpp ndax fardu kifaaya la mu ne juróom ñaareel bi sa mbokku jullit bu feebaree na ko seeti ñetteel bi sa mbokk jullit bu deelee na nga ko jaale ñeenteel bi sa mbokk jullit bu tucóoloo na alhamdulillah ko wax yarhamkumullah juróomeel bi nag moo ñu fi tax a daje sa mbokk jullit bu la ooyee ci lu neex yàlla na nga ko uyu dañ ñoo oo ci lu neex yàlla yaa ayuha alladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuxyikum bu lañ ooyee ci lu neex yàlla na ngeen uyu ban dañ ñoo oo ci mbir mu màgg mbir mu tedd mbir mu rëy ci lislaam muy lan muy leylatul qadr ndax yàlla wax na inna anzalnaahu fii leylatul qadr wa ma adraka ma leylatul qadr leylatul qadri xayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruxu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xatta matlai alfajr ban léelu ci guddig leylatul qadr bii nga xam ne journée bi yëpp malaaka yi dañu wàcc di wàcc di wàcc ngir aajo yi faju ngir ramu jaam ngir xettali leen ngir dimbale leen ba jant bi di sox wala ba jant bi di fenq ban guddi gi guddi gu màgg la guddiha kulluha nafahaat wa barakaat wa kulluha xayraat ñu ngi sant yàlla ci loolu di ndokkeel mboolem taifa muridiye waaye di ndokkeel mboolem euh, njabooti soxna may waaye di ndokkeel seen ci bopp seen soppe yi nga xam ne dëgg-dëgg mën naa wax ne ambassadeur la fii ci Touba muy séq jéego yu yaatu yu màgg yu tëdd muy kan muy Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé ma nga xam ne mun naa wax na bàyyi Fall la mun naa wax na soldat la mun naa wax na capitaine la mun naa wax na général la ngir puso la rek di nose di ñëw comme ni ko waajuram walla ni ko maamam doon defee Seydi Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy taaw Cheikh Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul xam ne gën na si bàyyi taarix boobu xam ngeen ko bàyyi ne amul lu gën a màgg jumaa ji mu jël yëkkati ko ca kaw jumaa ja mu defal fa defal ko lu ne mu nekk fa ñaari semaine yàlla Cheikh Ahmad Cheikh Abdoul xam na ci dara kóllëre googu saa su nekk mu ngi koy feddali ci kan xalifa Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass bu mu fa nekkee woon ba tey lépp lu xew ci pays ba moom dina ñëw teew wuutu fa mboolem xadra bi ba ñu koy ndokkeel ci yitte yu kawe yi nga xam ne am na ko fépp fu mu dem bir na mën a siggal na xadra bi ci àddina bi ñu ngi koy gis ñu koy suivre di koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam waaye di ndokkeel sama xarit bopp sama soppe mun naa wax sama seexandoor muy sëñ baara dolli maa ngi koy gis fële du koy ziyaara du koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla dolli ko tawfiq di jéggalu ci guddal bi waaye di ziyaara ñëpp di sant ñëpp allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mboolem ñi fi teew ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen masaw di ko def ci turu sëriñ Mouhamad Mahfouz ak mbooleen jabatuk soxna may gépp kàddu yu gàtt rek lay doon ndax xaw naa guddi kàdduy cant moom la ma sëñ bi wax ne naa ko jot li ba ci jiitu mu jëm ci ki nga xam ne moo fi nekk sëriñ Tuubaa di Cheikh Mouhamadou Mountakha li muy def lépp ci ak ronam ak kilifteefam la ko def dina ci dellu sil boppam moo ko jox ndigal moo tax mu sañ ko def na ko soxna si daan defe kon sëñ Bass loolu ñu ngi la ko yóbbante cant yoo xam ne jëm nañ ci sëñ bi geneen cant gi mu ngi ko jëmale ci sëriñ Sidi Abdou Lahad monsieur le maire Abdou Lahad mu yor kam ñu ngi la ko yóbbante ci taxawaayam bu rafet ak taxaw njabootu soxna si mook sëriñ bi ñuy benn muy wéttalam waxtu bu fa demee rek sëñ si di day bëgg di ree ba kër mu fay jóge façon tooñ bu ne mu dëkk ko tooñ kon ñu ngi la cant googu ci moom di sant kii di sëriñ ba Basiru mi toog ni wax dëgg la matu ci man seere waaye man maa gën a matadi ci moom seere ndax sunu diggante àgg na foo xam ne li ci nekk ci ci cofeel aku ñeewante ak yërmande jégg na dayo nekkul lu ñu mën a expliquer waaye sëriñ ñu ngi lay sant ñu lay gërëm ci sa taxawaay ci wetu kii di sëriñ Touba ci li nga xam ne moom nga koy liggéeyal ci lu nëbbu mu gën a bari fuuf la nga xam ne ma ngay feeñ te sama am ànd ci ndax yaa ngi ci am ay ay ndam te lépp loo ci yëkkati woon bu ci àndutoon ndam du ca topp kon ñu lay sant ñu lay gërëm te loolu sañ nañ ko def ci turu mboolem yoonu murid bépp ndax ñoom nga koy ñoom nga koy defal rawatina nag lii di kër soxna si sëriñ baa ngi nii toog booba tey yaa ngi téléphoné yaa ngi dikk mën naa wax ne lépp loo xam ne lijjantiku na fi rek sa loxo mi ngi ci biir kon ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm kër sëriñ Tuubaa yépp ngay toppatoo muy njabootu sëriñ bi ci deret muy seex si muy taalibe yi ndax loolu mooy sa responsabilité waaye ni nga beral loxo kër soxna si loolu ñun xam nañ ko te kawe na ci ñun kon dañ lay ñaanal yàlla mu nangu li nga xam ne yaa ngi ko defal sa maam gën laa kattanal ba lépp li nga xam ne yéene nga ko nga defe ko nang ko bëgg ak sa sago te mu yàgg lool yàgg sa mag yi nga xam ne ñoom nga ko seqal geneen kàddu cant gi di jëm ci mbooleem taalibe yi loolu dama koy bàyyi sëriñ bi dana ci dellu si ci seenu takku ak nu ñu bis bi su ma leen taalibe yi nag bokk yi dañuy dugg ci biir loola ndax ñun ñëpp ay taalibe lañu waaye bis bi di sëriñ Bas wax léegi mooy li ci nekk ñun buñ ko taxewutoon sax ñoom danañ dikk taxewa ko ndax soxna si moo toll noonu si ñoom te xam nañ bis bi fi nga xam ne fi la toll woon soxna si moo tax amal nañ leen ak cant ndax fii sëriñ bi nekk bis bi ku nekk gis na ni mu toll waaye li ko woyofal mooy seen gunge gi nga xam ne ñu ngi koy gunge nekk ci wetam ànd ak moom lépp moo tax yan woyof toy ci moom kon ñu ngi sant mboolem mbokk yëpp de sant mboolem taalibe yëpp di sant nag ki nga xam ne moo di monsieur le président de la république loolu monsieur le ministre Galoba ñu ngi la koy yóbbante yaa ngi mboolem délégation bi nga àndal muy gouverneur Isma Dioum ak ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn boo demee nga xamal ko ne ko li nga xam ne moom la sasoon monsieur le gouverneur ak CRD bi lépp nuñ ca waroon def def nañ ko ba def ko noo xam ne kawe nañ jortu sëriñ bi te keroog bu ma fa sëriñ bi yebalee ma toog dama ne leen fii de mosuñu am benn jafe-jafe ak CRD bi ci def li nga xam ne ñu ngi koy diggee ci bis bi. te jii rafet nañ ci njort kon nañu sant ci li weesu di rafet njort ak di yaakaar ci li nga xam ne mi ngi jëm suñ kanam te keroog bi ñu toogee ba def évaluation ak tey jii ci màggal gi loolee nañ ko waxee woon defe nañ ko ni kon gouverneur ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm di ko jot li say kilifa di ko jaarale monsieur le ministre pour mu àggal leen ko di sant président mu xam ne fii moom kërama diggam ak sëriñ bi leer na nañ xaritama wëllëreema lépp ma mi ngi koy jàpp jàppale na ko sëriñ bi itam jàpp na ko di ko jàppale loolu fu waay di dem fu ne na ko fa yóbbaale loolu leer la amul benn amul lenn lu ñuy lam-lamee bu dee nag suñu wàllu bopp ñun moom suñu jàpp daanaka jël ñu koy wax fii ndax xam ne nañu doon def démb ak bërki démb te jii lañ ko gën a def te ëllëg lañ gën a noppi di ko def boo demee nga ne ko lépp lu mu dugg ndax xam ne ña nga ca biir loolu mooy li nga xam ne mooy leer nañ amu ca lu ñuy laq amu ca lu ñuy lam-lame foofu lañu toll foofu lañu nekk ndax wax naa ko léegi rek mi waxtaan ak monsieur Omar Sarr la Cheikh Abdou Lahad waxoon ni diggante def ak dindi koo fa seen Abdou Lahad waaye ñun loolu la ñuy roy waaye diggante jàpp ak bàyyi koo fa seen moom la sama jëmm ji man damay jàpp ba mu bàyyi te jàpp naa kon ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm di la ko yóbbante di la sant nag yow sa cant bopp ndax sa taxawaay bu bu rafet ci département mbakke bi rawatina ci commune Touba bi ak ci mbooleem sa sëriñ yi fi nekk yépp mu njabootu sëriñ Touba gi nekk nga ñoom nekkin wu rafet am nga yar am nga teggin am nga ak taalibe kenn ku nekk jox nga ko la nga xamante ne bii mooy àq ya nga xam ne moom la am ci yow loolu ñu ngi la ci sant ñu ngi la ciy gërëm wax naa la ko léegi li nga am loolu moo la ko may ndax fii ku amutuk taalibe rek doo fi mën a am dara ndax li fi ndax li fi maye moom mooy ab bi te loolu nag suñu boroom dénk na la ko kon nanga sant yàlla sa jegeñaale yépp itam nañ la sant la yàlla ci loolu man sama wàll bu aussi si ngi lay sant ci sama diggante ak yow lu ci manqué mën naa wax ne ci man la waaye yow ma la nga lépp kon sant nañ la gërëm nañ la di sant itam kii di euh, Omar Sarr man si na ko sax bañ a sant ndax moom dëgg la man ak moom ñoo fi yem sëñ bi di jaayee ma fee léegi mu ñëwee ci kër ga loolu la fa waxtu loolu lay doxal wax nañ ko léegi nekk nañ pouvoir di fi dikk ne ci opposition di fi dikk yàlla indiwaat ci pouvoir muy dikk kon li ko fi indi ay position de pouvoir wala ak ñàkk pouvoir dafiy dikk ngir ci njabootu soxna si la bokk kon ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ci sa taxaay bu rafet na nga mel Dagana na nga mel gesee bokk noonu nga mel fii ci Touba noonu nga mel fii ci biir kër Soxna May kon na nga xam ne sëriñ mu ngi lay sant mi ngi lay mi ngi lay gërëm di la di la safoo nga xam ne ci njaboot gi nga bokk mook sama jëmm ji wutalewu leen ndax loolu yaa ko wane te loolu sa jikko la ñu la xam ñëpp xam nañ ko léegi rek la sëriñ Bass di wax ne man day ñi nga xam ne xam ne li ñëpp nii lañ la fonke kenn bàyyiwula loolu nag ci yow la parce que nit ñi aussi waaye di wuñu kayang kayang wuñu buñ jàpp buñ la jàppee te bàyyi rek lu mat fanweeroon ñaar fukki at am na lu tax loolu nag kon sa sa jikkoy bopp la sëriñ bi mi ngi sant itam nag le ministre de loolu gouverneur yow lañ ko yóbbante daaw santoon nañ ko fi danañ ko santaat ren taxawaayam ci bis bi rafet na li ngeen war def yéen def ngeen ko waaye moom jéggi na loola ba seq ak sëriñ loo xamante ne bii seen diggante la ñoom ñaar nit ku baax la ñu ngi koy sant di ko gërëm ci ci sa kanam di la ko di la ko yóbbante di sant itam nag ñi nga xam ne teew nañ fi ñëpp sëriñ Modou ñu ngi lay sant sa taxawaay rafet na yàlla na la sa fay am nga yitte mën ngaa jokk ak bokk di sant dem monsieur le ministre mbooleem ñi nga xam ne ñoom nga àndal te ñëpp du suñuy xarit isma mi ngi nii toog adjoint au maire nga nee toog Bara Sow ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn Ablaye bàyyiwuñ kenn rek ñu ngi sant ñëpp ñu ngi ñu ngi gërëm kon ab suñu Ablaye wax ji du du bari lool bu sama xarit bopp nag muy Cheikh Baye Hadi jóge ca sunu wayjur Cheikh Mahi ñas ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm wax ji rafet na lool te bu la sëriñ bi yónnee nga dikk fii te sëriñ bi barki démb la fi yónnee si woon te daaw defal ngeen délégation ñëw fi kon li nga xam ne ñu ngi dox seen diggante ak Touba te doxoon ca sunu maam yu baax ya muy ca Cheikh Ablaye Niass ak sëriñ bi doxoon diggante Cheikh Ibrahima Niass ak njabootu Serigne Touba gi loolee li nga xam ne yéen moo ci seen waar yéen a ngi koy bay bay nu rafet sa dëkk fii ci dëkk bi nekkul loo xam ne hasard la loolu dama koy leeral sëñ bi ndax way waajuram moom lañ féetale woon relation yi nga xam ne moo dox diggante Medina Baye ak tubaa moom moo ko daan dox mi nga xam ne waajuram làqu na moom mi ñu wuutale ko fa ne lépp loo xam ne moo xew ci njabootu Serigne Touba gi yow lañ fi doxale boobu cër yow lañ ko jox kon loolu mooy tànk yi waxtu wu nekk mi ngi dikk mi ngi mi ngi rafetal te ku ñàkk jot la nañ koy gis nii daanaka du toog ci réew mi bu toogee ci réew mi waxtu wu nekk mi ngi wër ci biir Sénégal nekk ci ay gàmmu nekk ci taalibe kon ku nekk ca la ko war la nit ku am maanaam nit ku am solo la kon sëriñ bi xañ na kàddu tont yi dama la koy bàyyee ndax ci yow la ñu yónnee waaye man dinaa ko sant ci sama wàllu bopp ak ci li nga xam ne mooy sama diggante ak moom kon si lay wax ji munta gudd foofu lañ koy yemale la ci mujj rek mooy sunu cant bopp goo xam ne dañ ko sant sëriñ bi loolu dama koy def ci turu njaboot gi sëriñ di mi ngi toog Baye Cheikh mi ngi toog ak mboolem turu gone yëpp sëñ bi ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ndax da kilifa goo xam ne kilifa gu neex liggéeyal nga ndax nit ki bu fekkente ne bii lim lay def loo sax moo la ko gën a xam parce que moo la ëpp xam-xam ëpp la xel ëpp expérience waaye am confiance totale boo xamante ne bii jël na lépp délégué ko loolu mooy sabab réussite yi nga xamante ne bii mi ngi am te loolu jikko jooju mooy jikko jële yàlla bindee waxoon naa la ko fii daaw jéeg li nga xam ne man xam naa ko nga ëmb ko ci ëmb ko ci kersa ku la xamul sax day jàpp ne kersa googu mun a nekk ci nit te koo kersa gi Sëñ Tuubaa la mën a jóge kersa gi foo ko takk weesu dog bu la bettu sax ngay def dara na sëñ ba defoon kam kam muy jël loo xam ne moomu ko mu koy làqut wala mu ko yan noonu la mel googu ke wallaahi googu la kon nag sëñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla di la ñaanal yàlla loolu rek foofu daal laaj ci man a yem ndax sa jikko xam naa ko te mboolem yoon wi xam nañ ko sa sang yi fu ma ci dem ni ñu lay safoo yow sax xamuloo maam du fi jege dayoo bu ñu ma gisee ni ñu ko defee yow sax boo teewee duñ ko defee noonu loolu lépp rek ak safoo la ndax bu fekkee ne sa bokk yëpp daanaka ku ci nekk rek maanaam buy tooñ yow lay tooñ loolu mooy tegtale ne am nañ cofeel goo xam ne am nañ ko ci yow te mboole mu Sëriñ Tuubaa yi kenn desu ci kon ñu ngi sant ñu ngi gërëm di am mbégte ak fierté ci am kilifa gu mel na ñëw di ñaan yàlla mu boole ñu fi yàggal ñun ñëpp te li nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal soxna si li nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal sa maam li nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal lislaam lépp sunu borom nangu ko te fay la ci loo xam ne lu kawe suñu wax lay doon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu sëñ Abdou yow itam ñu ngi lay sant baax nag ci sa taxawaay bu rafet yaa ko Omar yéen ànd at mu nekk noonu ngeen def foog naa dañ ci waroon wax lépp wax nañ ko fay ci kër ga waaye yow danañ ko feddali fii ci sa kanam way jur ba mu dégg ko jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin wa mawlana muhammad wa ala wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu mbokk yu tedd yi fi nuyu bokki taalibe yëpp di nuyu bokki jullit yëpp di leen siyaar ci weeru tedd wii di chahru ramadan al mubarak di chahru rida war rahma di weeru ngërëm di weeru yërmande di weer wi nga xam ni ci la sunu boroom wàccee alquranul karim ngir jubbanti nit ñi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان di weer wi nga xam ne sang bu tedd ba di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa axiruhu itqun min annaar yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ne weeru koor njaal benn gi yërmande yàlla la jëm ci jaam ñi digg bi di ak njëggal jëm ci jaam ñi mujj di goreel ci safara jëm ci jaam ñi yàlla def sunu waajur di sunu kilifa di soxna Maymunatu Mbàkke amoon yéene ak niseer yi liggéeyal waajuram ba di sëriñam ba di xaadimu rasul ak Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ridwanullahi alayhi wa nafaana bi bu mu amee yéene jooju mu xam ne weer wi gën a tàdd ci weer yi mooy chehru ramadan al mubarak dellu xam ni guddi gi gën a màgg ci guddi yépp ci at mi mooy guddi laylatul qadar ndax màggaayu guddig laylatul xadar sunu borom ci boppam moo nu ko xamal fil quranil karim sunu borom moo nu xamal ne inna ansalnaahu fi laylatul xadar nee na ci guddig laylatul xadar la wàcce alquranul karim teg ca ne laylatul xadri xayrun min alfi shahr sunu borom nee na guddig laylatul xadar jaamu yàlla gu ci waay def mu mu mu mu mu wotti jaamu yàlla ak juróom-ñetti fukki at ak ñett ak ñeenti weer dellu wax moom sunu borom ne laytul xadri bu agsee guddi gi moom ci boppam day wàcce malaayika yëpp ñu ànd ak seen kilifa di seen jiit di Seydina Jibril ñu nekk ak mbindeef yi ba ba fajar di mag ci ndigalul yàlla mi nga xam ni moo bindi malaayika yi bind leneen lépp ñu ne lu waral muy wàcce malaayka yi mu ne lépp di jàmm aku yiw bu jëm ci ci julli déeg mbindeef yi xataa matalaay fajar booba fajar di ñëw di guddi gi nga xam ne itam ci la doon sunu borom xamale ne ci lay séddalee lépp ci lay tàqalee lépp ci lay joxe cër yëpp inna ansalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim ci guddi gi ci la son borom di séddale cër yëpp di ci joxe daraja yépp di guddi goo xam ne Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom it wax nanu njariñ yimu mu moom guddi gi ndax yonent bi sallallahu alayhi wax na man qaama laylatul qadri imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min dambi yonent bi nee na képp ku màggal guddig laylatul xadar ci jëf yu baax te gëm yàlla ak rafetal lal ko yonte bi nee na ki def loolee sunu borom dana ko jéggal bépp bàkkaar bu mu sàmm ba mu juddoo ba bis bi mu defee loolee di guddi goo xam ne sunu sëriñ di sunu yaakaar te ëllëg ak Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ridwanullahi alayhi wa nafaana bi danu cee leeral leeral yu bari moom Xaadimu Rasul ndax dafa wax ne alhamdulillahi almujibi dil qadar man xassana fadlan bi laylatil qadar sëñ Tuubaa nee mi ngi sant yàlla cant ga gën a mag gën a rëy ngeen ngeen lii nga xam ne sunu borom moo ko moo nu ko andil di ngeen yi nga xam ne sunu borom moo ko andi guddi laylatul qadar sëñ Tuubaa ne muaziman li sha'niha fi dahri xata gadat xayran min alfi shahri sëñ Tuubaa nee na guddi gi sunu boroom ci boppam moo ko màggal ba def ko muy guddi gi nga xam ni moo gën junniy weer te junniy weer moo juróom-ñetti fukki ak ñett ak ñeenti weer. di guddi gi nga xam ne ci la sëñ Tuubaa ñaanale boppam ak njabootam ñaanal ci bu bokki jullit yëpp bépp teraanga boo xam ne sëñ Tuubaa am na ko. mook njabootam ak jullit yi nee na ci guddi gi la ko ñaanee yaa rabbana bi fadli hadal yawmi aslih umuri wa umura xawmi nee na ci guddi gi ci la ñaan moom xaadimu rasul sunu borom mu yéwénal mboolem ay mbiram moom sëñ Tuba yéwénal mboolem mbiri ñi aju ci moom rawatee na ñi mu bokkal réew mi li nga xam ne moom la ab jullit mënta ñàkk muy teraangay adduna ak teraangay alaaxira sëñ Tuubaa wax ne ci guddi yi la ko ñaane ba sunu borom defal ko ko yaa rabbana bi jaahi han nuurayni hab lii nee na leeruk adduna liy leeral adduna tey leeral alaxira muy teraangi adduna ak teraangi alaxira ci guddi gi la ko ñaanal la ko ñaan moom xaadimu rasul ñaanal ko boppam waaye nag ne ñaanal ko mboolim ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon guddi gi lépp ay njariñ la loolu moo waral sunu waajur wa tànnoon ko ngir bëgg saa liggéeyal waajuram ba di xaadimu rasul yàlla def mu jamono booba ni ngeen xamee njabootu sëñ Touba lépp lu ñuy def dañ koy dëppaleeg ndigal mu ñëw ci magam ji fi nekkoon di al Cheikh Mouhamadul Fadal toogoon jataayu sëñ Touba ne ko man di dama amoon di dama amoon yéene yi liggéeyal suñu waajur wa di sëñ Touba waaye nag du ma ci dox benn jéego te ñëw ma ba nga jox ma ci ndigal sëñ lu ne ko jox naa la ci ndigal lu mat sëkk te di la xamal ne la lépp loo ci yéene mbaa lépp loo ci bëgg ci guddi gii sëñ Touba daana ko ci defal te daana dem ba kawi sa njort kawi njort mboolim mbokki taalibe bi bokki jurit soxna si tàmbalii di màggal guddi gi ba def ko lu mat juróom fukki at yàlla def lépp lu mu mës a am ci aw ñaqam da koy dajale ba weeru koor teru mu def ko ci ay enveloppe séddale ko daara kaamil yi nga xam ne ñooy jàng alxuraanul karim ngir jëm Sëñ Tuubaa at mu nekk itam waxtu wu weeru koor wi teroo dana jógal boppam dem ba fi ki fi nekkal Serigne Touba laaj yi ndigal ba am ndigal soog a wéyal bis bi. yàlla defit jëm ju tedd ji fi nekk di Cheikh Mouhamadul Muntaxa soxna si doy la woon ko lool ci weer wi maanaam ci guddi gi ba bu ma saa dem ci ki fi nekkal Serigne Touba. ba am ndigalul taxawal guddig laylatul xadar dafa ma yebal ci sëñ mu sëñ Mouhamadul Muntaxa ne ma demal ma ci Mouhamadul Muntaxa fu mu nekk fu ne nga fekk ko fa ne am naa ndigal ci ki fi nekkal sëñ tubaa waaye yow Mahfouz bu ci dox benn jéego maa nga wax ci benn genn kàddu te amoo ci ndigalul Mouhamadul Muntaxa lépp mu ngi ci loxoom. noonu lañ ko doon defee booba sëñ Muntaxa nekkagul xalifab sëñ Mouhamadou Bachir nekkagul xalifab sëñ Touba ba yàlla def mu nekk xalifa sëñ Touba ren jii bi nga xamante ne weer bi teru na ma dem ci moom di sàkku ji ndigal mu ne ma noo ko daan defee yaa njabootu soxna mi ma na mbàkki na ngeen koy yeesal te maa ngi lay xamal ne lépp lu ngeen ci bëgg mbaa lépp lu ngeen ci yéene taalibe ak jullit yi da ko am na ngeen ko bëggee. noo ko daan fonki na nga ko dolli ñu day taxawal bis bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa nag day jëmm joo xam ni alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Touba moo na ko baaxee xam ngeen ni sëñ Touba lu mu bëgg lu ne da koy ñaan boromam tabaraka wa taala te set yi mu ñaanoon xaadimu rasul mooy ku mel ni Cheikh Mouhamadul Mountakha Sëñ Tuubaa dafa bind wax ne wahab lana duriyatan tuddiimu al amala saaliha yaqadimu Sëñ Tuubaa dafa dékk ay loxoom sunu borom ne ko maa ngi sàkku ci yow di la ñaan sër yoo xam ne dañuy sax ci jëf lu baax ba faw dellu ñaan moom Seexul Xadim sëñ ñaan sunu borom ne ko wahab lana zuriyatan tujaddidu nahja nabiyal mustafa tajtahidu yow yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma seet yoo xam ni dañuy yeesal dañuy rénover yoon wii nga xam ne moom la sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xàlloon loolu sëñ Tuubaa ñaanoon nag alhamdulilahi rabbil alamina sunu borom defal na ko ci Cheikh Mamadou Mountakha ndax amul genn bëgg amul genn yitte ju dul liggéeyal sëñ Tuubaa ci bokk yi ci taalibi yi ci yoon wi ak ci diina ji doy na ci firnde lii mu taxawal Touba nga xam ne moo doon bëggug sëñ Touba di université bi kon ku ne xam na ne sëñ Touba bëgg-bëggam moo doon ab jàngukaay li mu njëkkoon a bëgg ci Touba mooy tabax fi néegub yàlla la ko ñaaral mooy ab jàngukaay te loolu sunu borom mi koy àggale ci loxol Cheikh Mamadou kon maa ngi koy sant di ko gërëm ci sama turu bopp ci turu mboolem njabootu Xaadimu Rasuul ak mu turi mboolem sëti Sëñ ak borom waa kër borom Daaru Muxti yëpp di feddali nu seq maag moom li mu seq njabootu soxna may doyloo gi ko soxna may doyloo woon taxoon na bi soxna si demee ba ak mag jege ko fekk sëñ Saliou moo fi nekk nekk fi sëñ Touba soxna may dafa jógu këram ñëw ci kër sëñ Saliou ñu woo sëñ Mountakha sëñ taxa ñëw sëñ Saliou ne ko damaa ma damaa laa bëgg dox doxali sama diggante ak soxna may mun a mii ndax bëggatuma waxtu waxtu lépp lu mu war a waxante ak man solu dàllam ñëw fi man te may mënatuma di sol sama daal di dem ci moom te ma noonu ñaar ñëpp maak soxna may doy nga nu ci suñu diggante sëñ mu daxa dox diggante soxna may mun a ak sëñ saaliwu kon maa ngi koy yeesal sunuy cant ak sunuy ngërëm di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te may ko wér ba li mu yéene liggéey Xaadimu Rasuul yëpp mu def ko fa di sant jëw dañu ju tedd ji fi nekk di loxoom day yorom di sëñ Siidi Mbàkke moom Cheikh du laxat ku nekk xam diggante soxna may Maymuna Mbàkke ak Cheikh Abdoul Ahad ndax moom la njëkk a ab cër ci mboolem ñi mu bokkal Xaadimu Rasul baaxoon nañu góor gune ne boo andee jigéen fa sa kër ka nga gën a sopp ci say sœur ka nga gën a doyloo moom ngay njëkk a soxna may la Cheikh Abdou njëkk a ab cër ci mboolem ñi mu seexal sëñ Tuubaa doom ju jigéen ji Cheikh Abdou Lahad njëkk am ci àdduna mu topp ci sëñ Siidi mi bu doon dund tey mi ngi ci juróom-ñett fukki at ak lëf soxna may la ko la ko tuddi soog a keneen wala ree woow moo di dox diggante soxna mi ak Cheikh Abdou Lahad ba feeñ ci diggante sëñ Sidi ak njabootu soxna may mën a Mbàkke kon Abdou Lahad ka ci sama tur ak turu mboolem njabootu soxna may mën a Mbàkke maa ngi feddil te yeesal sunu kilifteef ci sëñ Sidi dina ko yóbbante bu baax di sant nag sunu wajur di sëñ Bassirou Anta Niang mi nga xam ne moo fi nekkal borom Daaru Muxti di ko amoon ab cër ci soxna may mën a Mbàkke di waajur woo xam ne euh, fierté la ci njaboot nga am baay bu mel Cheikh du Bachir ndax bu buñ dee seet ñi ëpp xam-xam ci réew mi ñi raw ci réew mi faw koo tudd da nga ko ci boole moom Cheikh Mamadou Bachir aalim la aabid la xaafid la ñaan sunu borom yàggal ko fi te may ko bu baax a baax di sant sunu kilifa ak bopp de day alxaji maam Thierno mi nga xam ne moo jiite kër sëñ Cheikh Awa Balla te mat ko sëkk fa tabaarakallaahu te sëñ Atex mi nga xam ni ku ne xam ne sama diggante ak moom teewal ko fi teewal fi njabootu sëñ Cheikh Awa Balla gépp euh, gan gi nu am tey nag mu teewal fi jëmm ju du jotee daje di Cheikh Mouhamadul Mahi yàgg naa dox ay tànk yu baax diggante Kaolack ak Touba mooy wax leen benn anecdote rek bu am yàlla def na sama waajuru góor di sëñ Cheikh Awa Balla at ñi mu njëkkee jóg di aji Makka Cheikhul Islam ibraham a Niass la àndal ñu aji Makka Alhaji Ibrahima Niass ànd ak taawam ba ak Cheikh Abdoulahi ak su ma juumul si Ahmad Tidiane suñ saxaw bàll ànd ak Alaaji Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke mi njëkk a toog jataayu Sëriñ Tuuba daana faral di wax loolu moom suñ saxaw bàll ne maak sama mag jëri Alxaaji Ibrahima Ñas bu nu foonee xajarul aswad ci bisu tawaaful ifaada Cheikh Mouhamadou Lamine moo nu taxaw ban def ko muy Alaaji Baara Mbàkke amoon wëllëree lool diggante Alxaaji Ibrahima Ñas ak sëñ Cheikh Awa Balla ba ba ñu ajee bay ñibbisi am na ay abyaat ay bayit yoo xam ne allah cheikhul islam def na ko ci sëñ Cheikh Awa Balla yaakaar naa mi ngi sama doom ji di bàyyi Cheikh Sidi Mokhtar wala re woowu nag mooy dox di dox ba ndëgëni te noonu la alxaji Abdullahi Niass meloon ak xadimu rasul kon nag noo ngi rafetlu sa tànk yi ngay dox bu baax di lay sant di lay gërëm bu baax euh, monsieur le ministre maa ngi lay nuyu nuyoo bi gën a tedd di la ñaan nga lii le président de la république El Hadj Macky sàll samay cant ak samay ngërëm te fedd li kóllëre gi dox sama ndiggante teg moom te muy kóllëre gu yàgg maa ngi la koy wax léegi ci biir bi mu nekkee ministre de l'intérieur lanu fasante kóllëre booba je me rappelle bu toon Abdou Karim fàtte naa sant wa moo nekkoon Diourbel Abdou Karim Camara président di yëkkati ay taraanga di ko ko jox mu jëm si ci man ba ma jógee fii dem fekk ko ministère de l'intérieur nu fasante wëlëre joxante loxo wëlëre woowu musa dog ba bis ni tey xam na ne man dara du sama du sama yite lu dul sàmm njaboot ak soxna may mun a bakke te yàlla def na alhamdulilahi rabbil alamin soxna si dafa am doxin wu mu doon dox wu mu doon doxee te ci la nampatal ak njabootam mooy dafa saxoon ci di liggéeyal sëñ Tuba jaamu yàlla ak liggéey ci la saxoon te musta wekk lenn ci kenn doy na ci firnde bi nga xamante ne président de la république bi fi nekkoon di Léopold Sédar Senghor ñëw Touba ci sëñ Fallu ne ko damaa bëgg jot ci réew mi sëñ Fallu da ko ne kër sëñ Touba fii di ab néeg la may buntu bi ngay bi ñuy dugge soxna may mën a mooy buntu bi ñuy génnee ñenn ñi ñëpp nag ñi ci biir néeg bi kon nag danaa la ñaanal yabal la nga dem daarul moxti boo demee nga dem ci sama rakk ja ne ko maa la yabal maala la booleeg moom na nga fexe ba mu wax ne la li nga bëgg da nga ko am président Senghor jóge fi dem daarul muuti soxna si teral ko ganale ko ba taara nga ñu mët sëkk mu ne ko ah, dafa am day lu ma sëñ Fadilu waxoon ndax mu ne nag ma ñaanal mu ne ko waaw danaa la ñaanal mu ne ko ah, nag damaa wax ci say lamiñ ne danaa gañe soxna Sede mu mu insisti insisté soxna Sede kon nag ko def ngir jëmi suñu Fallou bi ma ko sant bi yàlla defee président Senghor gagné ba toog ñu toog ab diir sëñ Fallou yónni daam Dramé ne ko ndax boole gi ma ko boole nag soxna may ndax jox delloo na ko njugal ndax jox na ko addiya président Senghor di ko ah, soxna si moom mosuma teg dara mu ne ko na ko na nga ko recevoir je me rappelle très bien booba mi ngi nekk ci c'était en 1963 président Abdou Diouf di soog a nekk son directeur de cabinet ma ànd ak soxna si ak sa secrétaire bu tudd Maram Korea ñu bari xam na ko te mu nekkoon Paris ñu bari si jànkat yi këram la ñu daan nekk ba ñu dikkee soxna si dugg ci bureau président de la République ak man mu ne ko soxna may lan muy sëg bëgg mu ne ko xanaa bëgg-bëggu njaboot gi rek daarul xab laa nekk su ma sañoon dana fa am forage su ma sañoon danaa fa am dispensaire boo xam ni taalibe julli di fa la ñuy fajoo su ma sañoon dana fa amu yoon waaye man sama jëmi bopp ak sama njabootu bopp amuñu genn bëgg-bëgg Senghor daa di daa di daa di daa di daa di daa koy may forage booba Amadou Batour Diop ancien ministre du développement rural moo nekkoon directeur di génie rural defal ko forage ci Darou Wahab président Senghor ñëw c'était au mois de décembre 1977 ñëw de forage bi lépp luy bëgg-bëggu sonde si Senghor defal ko ko bi yàlla defee nguuram jeex itam président Abdou Diouf ñëw continuer loolu foofu sax amoon na fa passage bu gàtt bi nu demee ci président Senghor en 1963 Senghor am lu mu yëkkati ne ma jox ko soxna si ma jox ko soxna si soxna si ne ma téyel ma téye ko nu génn jaar ci bureau Abdou Diouf mi directeur cabinet président Senghor soxna si ne ma yëkkati si nangam jox ko jox ko Abdou Diouf ma làmm sama jiba yëkkati loola Abdou ne ma neel soxna si ne ma ñaanal ba dara bu dara dox si ma néegi nag président Senghor waaye dama ñaan la rek ña ak ñaanam moom ma gën a lépp foofu la wëlëree soxna may ak président Abdou Diouf am fi ba bi jeexal yàlla du gën Abdou Diouf ñëw it si ne ko la ma waxoon Senghor laa lay wax dëkk bi rek laa am président Abdou Diouf boobu moom la Diop moo nekkoon ministre de la santé Abdou Diouf indi fa booba Robert Sagna moo nekkoon ministre bi yore lépp lu jëm ci googu fànn loolu di continuer di continuer ba soxna si làqu bi fi président ab Abdoulaye Wade dikkeet ma xamal ko ne ko dëkk bi daal moom la soxna soxna may am muy Daarul Wahab mu ne ma lu fa manqué ak loo fa bëgg ma ne su ma so su ma sañoon de daañu ko électrifier boobu ministre bi ma dikkee ñang bii fi jóge léegi moo amee woon énergie président Wade jox ko ndigal ñu électrifier dëkk ba euh, noonu nu soxna si yare woon nag def ci nun jom yar nu ci liggéey ak jaamu yàlla nun njabootam ci loolu rek la ñuy tënku kenn du dégg sunu yitti sunu yitti bopp wala yitti personnel sunu yitti mooy lu jëm ci taalib yi lu jëm ci njaboot gi lu jàppandal seenu dund lu jàppandal seenu nekkin kon nag foofu ci biir loolu maa ngi maa ngi ciy profité di la ñaan nga jottali président de la république yoon wi nga xam ne moo jógee Touba Belal ñëw Daarul Wahab yoon wi àgg na ci neexatut a jaar te distance bu gàtt la ndax Touba ba Touba Belal tali bi defar nañ ko mu des Touba Belal ba Daarul Wahab une distance de treize kilomètres. sama digganteeg moom yàgg na lool waaye kenn mu mësul dégg sama yite bopp walla yite njabootu soxna May. waaye nag dëkkub soxna may lay tax taalib yi man faa nekk nekkeen wu rafet loolu fokk nu di ko sàmm di ko sàkku ci na wet gi nga xam ni li nga xam ne mënul ko suñu bopp loolu maa ngi ko maa la ko yóbbante ci président de la république ñu feddali leen suñu diggante sama wala sama sama diggante moom bu baax di santit sama jarbaat bii di le ministre Omar Sarr ku yàgg ci kër gi la ndax naa Mbàkke mi nga xam ni maag ma soxna may soxna Bali la am ak man ak soxna Maam Fati soxna Bali moo jur Cheikh Abdoulaat ak Asu soxna Maam Fati moo juroon Seexuna yàlla def mu teel a bu liggéey Omar amoon wëllëre wu rafet diggante mu Seexuna ni naa nekkoon sama jarbaat ni Cheikh Abdou mi nekk sama jarbaat noonu la Omar nekk sama jarbaat yàlla def na musta nagoo wuute bis bii même bu ko fekkee à l'extérieur dana dagg ay itam ñëw fekk lay Qadr loolu it maa ngi ko ci sant di ko ci gërëm bu baax a baax di sant itam euh, le premier ministre moom it sama wala yàgg la di Amadou Ba di ko sant di ko gërëm bu baax a baax a baax di sant mbooleem autorité yëpp di la ni ko Cheikh Abdoul Ahad waxee euh, Antoine Diome wala ci nun te lépp lu ko lépp lu ko waroon ci bis bi daan na ko def waaye rawatina nag màggalu ren jii maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax di sant autorité yi nekk ci biir région bi tàmbali ko ci le gouverneur le préfet ak mboole membre CRD yi ba ci Abdoulaye Ka mii nga xam ne doom la ci nun di jarbaat ci nun yow amee commune bi te nekk fi nekkeen wu rafet fa tabarakallahu bi nga xamante ne am naa ndigal ci sëñ Muntaxa ba war a taxawal bis bi ñu ko baax a def Cheikh Abdoulaye mii di sama loxom ndajoor di sama taaw moom laay yëkkati organisation bi teg lépp ci loxom yabal ko mu dem njaareem ñu defa CRD ba waaye lépp loo xam ne sàkk woon na ko fa ci luy tax luy doxal màggal gi def nañ ko defen wu rafet am naa ci te lool maa ngi leen ci sant leen ci gërëm bu baax ñaan ngeen jot li ngërëm yi tàmbale ko ministre de l'intérieur ba ci président de la république ndax man awma lu may bis bi amoo lu may njaboot bi sama xol sedd na bu baax bokki taalib yi nag maa ngi leen di dénk bu baax te di ci jëtal sama bopp mooy nu góorgóorlu bu baax parce que ni tënku ci jaamu yàlla ak nagoo liggéey te yaatal xol yi te kenn ku nekk la nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa morom jullit ak moroom ma dara xaju fa te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne laa yuminu ahadukum xataa yuhibba li axi maa yuhibbu li nafsi nga ñu bindeef nee na kenn ci yéen nga moom du mat lu dul la mu yéene boppam da ko yéene ay moroomam kon nag nanu rafetal xol yi te yéenente lu baax kenn ku nekk wet gën nga féete loo ca mën a dimbali sa morom nga di ko ci dimbali ngir yàlla ak yonante bi ak jëmi sëñ Tuubaa jullit day dimbale moroomam jullitam sunu borom wax nañu ci alxuraan karim ne wa taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal udwaan nee na na ngeen di dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla te bañ di dimbalante ci noonoo wala ci ay bàkkaar kon loolu maa ngi koy fàttali sama bopp di ko dénk bokki taalibe di ñaan ñu ngeen boole seen bopp te xam ne Cheikhul Khadim kat liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko taxoon a jóg lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xaraawi nii Ahmadu nee na mission moo doon ñëw di yeesal di rénover yoon wii nga xam ni moom la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa xalloon loolu moo tax moo taxoon Sëñ Tuubaa jóg kon nag ngeen boole seen bopp bu baax. kenn ko ne la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom te yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ni al muminu lil mumin kal bunyan yasudu ba'duhu ba'dan yonent bi nee na jullit ak moroom ma dafa war a mel ni ay birigi mool na ñuy tegaloo di taxaloo dara ba ñu dox seen diggante noonu la jullit war a mel digganteem ak moroom jullitam te xaadimu rasul mi sunu sëriñ kat wax nanu ne wala tuaadu man raytum faahu yuxriju laa la illa allaahu nee na maa ngi leen di dénk yéen taalibe yi yéen murid yi bu leen noonu mukk ak kenn koo xam ne mu ngi génn ci gémmiñam baatub laa ilaha illa allaahu loolu mooy taalibe sëñ Tuubaa yëpp sëñ bi daa bëgg ñu booli seen bopp def genn buum ni ko sunu borom digle kenn ko ne la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom te loolu moom lañ sunu borom sant moo bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu kon loolu maa ngi koy fàttali mbokki taalibe yi nu góorgóorlu eh, jàpp sunu diine jàpp sunu taalibe tënku ci yoon sëñ Touba te nu xam ne ànd ak sëñ Touba eh, du ay pexe ndimbalul yàlla la yàlla nar a dimbali tey ëllëg fi dunya wal aaxira moom la booleeg sëñ Touba kon nag ko yàlla baaxe nga bokk ci yoonu sëñ Touba na ko jàpp si fukki loxo te góorgóorlu ci bu baax. fas tënku ci ndigal te bàyyi ci tere sunu waajur di sëñ Cheikh Awa daf daan wax ne kenn ko ne ci yéen yaari kër la am muy këru àdduna ak ak këru àllaaxira te kër gu ci manqué rek dana feeñ ci boroom mu ne këru àdduna li lii tax nga mën fee nekk nekkeen wu rafet mooy nangoo liggéey di si génn ak yàlla yi mooy asaka te bañ koo yàq mu ne këru àllaaxira lay tax nga mën faa nekk nekkee nu rafet mooy fas yéene sax ci jaamu yàlla di jëfe ndigalam tey bàyyi tereem te mu ne yaari kër yi nag ku ci sàggan ba genn ci manqué rek dana feeñ ci boppam loolu maa ngi koy fàttali bokki taalibe yépp di sàkku ci yéen ngeen gën góor góorgóorlu bu baax bëggante bu baax xam ne sëñ Tuubaa denk nanu denkaane yoo xam ne bu nu ko defee daanu am leen bëgg tey daan ko am ëllëg bokk ci ci ndenkaanu sëñ Tuubaa wax na ne aleykum yaa maasara al ixwaani bi bila udwaani sëñ tubaa nee na mi ngi denk mboolem ñi aju ci moom góor góorgóorlu ci topp yàlla te bañ di noonoo taxaababa fillahi dil jalaali bila tanasuin wala idlaali sëñ tubaa nee na na ngeen bëggante ngir jëm yàlla te bañ di noonoo te bañ di réerale te am na am na loo xam ne sëñ bi dañu koo dénk nun ñi ko yaakaar ñëpp ngir bëgg nu nu nu nu di see jëflante noog suñu bokki julit dem na sax ba romb sa mbokkum julit ndax sëñ bi dafa wax ne kunu muhibbina kunu muhibbina alxuyari li jamia xalqi ilahina almuxaddimi albadia sëñ Tuubaa nee na kenn ku ne si yéen na li muy bëggal bopp lu ba na na nay bëggal aw yiw waxuma la diggante mag moroomum taalibeem waxuma diggante mag moroomu julitam waaye mboolem bi fi yàlla yi li nga bëggal sa bopp li nga sa bopp na leen ko na nga leen ko yéene na nga leen ko bëggal loolu maa ngi koy dénk bokki taalibe yi ñu fa ñu góorgóorlu si bu a baax a baax te dimbalante mooy tax ñi ci am li bëgg euh, te bañ di noonoo bañ di bañante bañ di yàqante adduna lu jar loolu amu fi maa ngi koy dénk suñu bokki taalibe yi yëpp di insister nag bu baax a baax itam si ñu yar njaboot gi yar leen yarub diine jàng leen alxuraanul karim yar leen yarub taalibi jàng leen liggéey ndax wajur wu ne danga am warteef sa diggante sa njaboot te Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa wax na ne jullit bi bu faatoo dara du ko fekk ci bàmmeelam lu may yetti yëf xam bu mu amoon bàyyi ko fi moroom bi ay bokki jullitam di si di ko jariñoo moo xam téere yu mu bind bàyyi fi wala xam-xam bu mu jàngale woon ñu du ko jëfe aw amalun saalix wala jëf ju baax joo xam ni ki faatu jëfandoo bàyyi ko fi moo xam tabaxoon fi ay hôpitaux moo xam tabax fi ay jàkka moo xam def ay œuvre sociale yoo xam ni ay bokki jullitam ña jariñoo gannaaw bu faatoo mu ne yaar yi mooy fekk jullit bu faatu ci bàmmeelam lenn rek moo ñetteel mooy wala dun saalix doom ju baax joo xam ne dangay faatu mu di la ñaanal waaye yonent bi nee na lu dul ñett yi du fekke nit ci bàmmeelam xam-xam boo fi bàyyi jëf